jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo euh, talaata bu jot ci waxtu bi di leen wax ne namoon nañ leen di leen wax salaamaaleykum euh, di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm yàlla mi borom sutura doolu ñu sutura euh, boobook léegi nag gis nga ñu ngi woon ci bër làmb ji tëjoon nag ah ñu nit yàlla dogal ñu jaare fa defi woon ay tukki siyaare siyaare ji woon yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal nañ leen di leen baalu àq ba léegi rek di gën a yeesal suñu digganteek yéen di gën a jéggulu suñu digganteeg yéen surtout audio amateurs yi nga xam ne euh, ak euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër di ñu seetaan ñoom ñëpp tey ñu ne asalaamaaleykum seen i biir kër ñëw ziar si leen dañu ñëw ziar si leen euh, ngir ñaan gi nga xam ne def nañ ko jëmale ko ci yéen ngeen xam ne loolu lu ñu ñoroon la parce que suñu digganteeg yéen day diggante boo xam ne bii yàlla moo ko fas kon ginnaaw bi ñu demee joxe sunu farata yooyu dellusiwaat ci kàttanu yàlla ci daraja yontu yàlla Muhammad dellu siwaat nag fas yéene ànd ak yéen ci seen émission Roffo rofo nag euh, di euh, bu njëkk bi nga xam ne moo dégmal ouverture saison bi euh, di talaata bi nga xam ne mooy première émission Roffo bi tëgmal saison bi fukki fan ak ñaar ci weeru novembre 2013 kon ñu dégmal ko te nga xam ne làmb ji le 17 lay tijji ci stade Iba Mar Diop ak Mouniang production waaye nag lu jiitu loolu dafa am loo xam ne lii moo koy lal ci njëlbeen bi mooy demaloon nañ leen CNG dem seeti nag le directeur administratif bu CNG ci li nga xam ne nag mooy wàccaay yi wàccaay yi mooy lan ndax mbër ak promoteur ak ménager ak écurie ak école dafa am lu leen war laata seeni mbër di euh, légal pour mën a bëre loolu nag la ñuy dem seeti ko lu wam ci licence yi waxtaan nañ ci ak Ndiamé Diop wax nañu fi mu tollu ci mbër yi fi mu tollu ci ménager yi fi mu tollu ci promoteurs yi ak affiliation yi réaffiliation aussi day am ak tamit li nga xam ne mooy écuries yi nga xam ne ñoo nekk en règle loolu yëpp ñu déglu ci le directeur administratif bu CNG de lutte Ndiambi Diop ci sunu jokkook moom. Euh, jërëjëf Ngagne depuis le 21 octobre CNG ubbi na ay buntam si le plan administratif euh, maanaam biñ ko ubbee promoteurs yi ñoo ñëw commencé wut ay licence ba fi may wax ak yow nii. am na fukki promoteur ak juróom-benn yoo xam ni ñoo ngi ak seen licence jël nañu seen ay date fi mu ne nii ñoo ngi sur le terrain pour xool ban stade lañu koy tëggee euh, ñaari promoteur de lutte sans frappe ñoo amagul licence ñoom it jël nañu seen date ñoo ngi si terrain bu di wut fu ñu tëggee seen ay combat euh, écurie yi tamit ak euh, école de lutte yi ñoo ngi affilié wu ñoo ngi réaffilié wu di affilié wu. fi may waxee yow nii am na 34 associations sportives yoo xam ni ñoo ngi en règle avec le CNG c'est-à-dire déposé nañu seen photocopie récépissé bu fekkee ni écrit bi réaffilé la plus euh, le le PV de la dernière assemblée générale plus euh, la demande euh, adressée au, au, au président du, du CNG plus les 10 000 francs loolu mooy affiliation réaffiliation euh, concernant les licences euh, dafa am benn changement bu ndaw bu ci am parce que boo ñëwee réaffilié wala wala nga affilier wu dañ lay jox benn bordereau de dépôt bordereau de dépôt boobu dañ ko def en huit exemplaires c'est-à-dire am na établissement FRAPP renouvellement FRAPP établissement simple renouvellement simple établissement olympique renouvellement olympique établissement beach wrestling renouvellement beach wrestling yooyu écrit bu demee da koy photocopier parce que kenn mënatul ñëw rek déposer licence boo xam ne jógewul ci écrit bi écrit bi moom mooy remplir bordereau moom moo koy signer euh, def ci turu écrit boole kaak dossier lutteurs yi wut rendez-vous ñëw ak lutteurs yi ñun ñu saytu leen xool ndegam physiquement ils apte du am na liggéey boo xam ne nag bu ma nee physiquement c'est pas euh, di di jéem a xool ndagam léeg lii li ñuy xool daal mooy waa ji mi ngi dox normal mi ngi xool normal euh, leneen li si des certificat d'aptitude moom moo koy complété léegi bu dossier bi matee licence yi tamit ma fàttali ne léegi danga ko yokk dix mille la euh, frappe bi établissement bi dix mille la renouvellement bi dix mille la boo déposé say dossier Euh, dépôt bi mardi la wala mercredi soo ko déposé ñun ñu exploité dossier bi licence bu ci baax dossier bu ci baax ñu defar ko vendredi boo ñëwee ñu jox la say licence booleeg booleeg sa bordereau bi nga déposé woon ñun ñu garder benn photocopie jox la benn photocopie ngir ëllëg parce que toujours dañuy rencontrer problème yooyu mbër mi sama écrit la bokk mbër mi bokk sama écrit léegi nag pour jeexal polémique boobu yëpp ñun noonu la ñu noonu la ñu noonu la ñu demee ren pour mu leer. pour les managers les licences de manager ñoom d'habitude su promoteur bi day ñëw régler datam di régulariser xam nga foofu manage ñaari manager dañuy ñëw bu ñu ñëwee nag ñoom souvent ci la ñuy dagg seen licence moo tax instant bi amul benn manager boo xam ni dagg gum na licence donc manager amagul ci ci làmb ji defe naa euh, loolu mooy sàkk loolu mooy concerner les licences d'une manière générale situation boobu daal moo am fi ma la nekk fi ma ba fi may nekk di wax ak yow nii. fi may wax ak yow tembe amul benn combat bu ñu régulariser tey ci mardi amul benn bu ñu régulariser ko li ñu jot a def ak promoteurs yi mooy ñëw nañu ku ne jël nga date bi la neex defalal nañ la attestation buy wane ni làmb yow la attribué date yi yow yaay dem stade bu la neex nga wut. mais nag ci ci biir dañ leen ni leen dans une semaine yéen ñëpp war ngeen ñëw régulariser parce que date yi leen jox ñun on suppose que ni ay combat yu ñu ficelé la pendant l' intersaison une semaine à partir de. une semaine à partir de ku nekk jour bi nga ñëw parce que man mardi soir laa commencé joxe date yi donc ñi ñi ma joxoon mardi soir bu amee une semaine dañuy ci biir une semaine bi mën nañ ñëw régulariser warul waaye warul weesu une semaine. kon ñi waaw. ñu ma joxoon part bi mardi passé normalement mercredi bi au plus tard war nañu mën a ñëw régula régulariser te suñu calendrier sax mercredi la ñu arrêté comme jour de régulation si la promoteur yi ñëw war a régulariser le mercredi. cas de démission yi daaw na indi coow daaw waaye ren euh, amagul coow parce que leer na xëy na daaw li mu nekkoon lu bees moo tax mais ma ma fàttali la ngañ euh, démission yi normalement ci intersaison bi la war a nekk. ci intersaison bi mais c'est-à-dire xam nga ñàkk a xam règlement bi moo tax ñuy yenn saa yi ñu leen di may di leen expliquer waale ba au au plus tard mois de décembre pour ñu arrêter pour ñu arrêter démission yi. ko démissionné wul ba décembre mënatoo démissionné. ci écrit ba nga nekk te démission yi dafa am yoon c'est-à-dire doo ñëw ni dama démissionné non non non dafa am benn lettre booy jëlee ci écrit ba nga nekkoon. président bi si signé ko def ci cachem buy wan ni libéré na la su la libéré ñun boo ñëwee tamit du ñu accepter dossier boobu mais il faut que mu amaat beneen lettre boo xam ni ci président ba nga jëm day nangu ni moom moom moo moo nangu nga ñëw ci écrire plus sa dossier bu normal loolu bu amee ñun dañ lay jël mais bu ci amee benn bu ci xaw dëng rek kenn mënuñu jël dossier yooyu. alhamdulillah ren moom promoteur yi ci boppam ñoo ko jëkk wax. nee ñu vraiment li ñu gis doy na leen problème yi daan am amul zéro problème la ñu noté juste ba fi may waxee nii yaa zéro problème nit ñi ñëw nañ jël nañ seen date normalement ñi war a jiitu jiitu nañ ñi si war a topp topp nañu alhamdulilah ku ci ne am nga date bi nga bëggoon yaa ngi koy régler sur le terrain. la première journée bi sëñ du Niang moo bëgg a tëgg le 17 euh, donc euh, le 17 bu ma jumal ni dimanche bii di ñëw lay nekk. donc moom suba comme ni ma la waxee woon ni ñun jour bi ñu arrêté pour régulariser combat yi mercredi la donc suba la war ñëw régulariser kombaam defar combat yu ndaw yi defar yëpp ñun ñu defar kayit yi mu war a àndal jox ko ko euh, mu préparer euh, galaam waaw ngañ kon maa ngi lay euh, remercier bu baax ci seet bi ñu seet si lii dina tax ku nekk xam parce que déggoon naa problème yu bëri ñu naan ni CNG dañuy laaj nga indi sa mbër yëpp defar leen licence no non non non bordereau bi c'est pour rek xam fan la kayit gi jógee xam kan moo ko indi kan moo ko déposé pour mu leer pour bañ polémique yi amoon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu dégloo le directeur administratif bu CNG du lit di Ndiamé Diop ci leeral yooyu nga xam ne indi na ko ak yu bees yi nga xam ne. indi nañ ko ren ci wàlli làmb ji muy li nga xam ne mooy licence yi nga xam ne léegi dafa dem à dix mille francs ak tamit euh, promoteur yi nga xam ne licence promoteur léegi dem na à cinq cent mille bu dee lu simple bi à cent mille wax na tamit conditions yi nga xam ne ci la mbër yi war a doonee war a war a war a war a am légalité pour mën a bëre nga xam ne sa écurie mbaa sa école mooy li nga xam ne moo la war a cautionné pour nga mën a doon mbër loolu yëpp dégg ngeen ko ci promoteurs yi aussi xam nga daaw am nañ ci vingt promoteurs wax na leen ñaata promoteurs ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo légal actuellement écrits yi aussi wax na ko ak écoles yi euh, nombre bi dégg ngeen ko euh, ñi nga xam ne ñoo nekk euh, en règle en règle au fur et à mesure nag saison bi dem combat yi taxaw ci la écrits yi nag di gën a affilié wu loolu c'est important kon defe naa ne nañu dem ci papier administratif yi pour que xale yi mën a teel a am légalité pour mën a bëre loolu tamit ñu ngi leen ci ñaax écurie yi ak école yi te ren ñu gën a appesantiru ci texte bi gën koo xamal nag écurie yi gën a xamal xale yi texte yi surtout les interdits loolu dinaa ci ñëw ci yeneen i anam pour gën leen ko leeral ak ñeneen techniciens yoo xam ne dañ ci waxtaan kon nag mbokk yi defe naa ne ci noonu gis nga saison bii ñu génn euh, euh, li nga xam ne rek dinaa ko indi tuuti ci li nga xam ne mooy euh, bilan bi ndax booy xool ci journée yi nombre de journée yi 84 journée Euh, sa tëgg nañ ko ci ci ci ci ci làmb ji euh, nombre de promoteurs yi ñu amoon wax naa leen ko euh, am nañ ci vingt promoteurs ci li nga xam ne nag mooy nombre de lutteurs sept cent trente sept lutteurs sept cent trente sept lutteurs yi nag da ngeen ci dindi li nga xam ne mooy bëre simple bi nga xam ne amal nañ ko ci biir biir ay combat kon defe naa ne sept cent trente sept lutteurs bëri nañu ren nombre école écurie cent six yi nga xam ne Euh, daaw euh, participé nañu muy école ak écurie 106 école ak yëpp euh, du bëri nañu nombre de combats yi 515 combats 515 combats moom laa lay wax ne 515 combats moom la moom la moom la gars yi organisé entre promoteurs yi booy xool nombre d' arbitres yi 32 boo jëlee arbitre superviseur ak chroniqueur 32. Euh, officier nañu ren ci euh, euh, wàlli làmb nombre de stades dis naka jekk nag Iba toujours mooy jël palme bi ndax fa la gars yi di gën di tëggee booy xool ci wàlli li nga xam ne mooy réclamation yi booy xool treize treize réclamation moo am ren waaye ci treize réclamation yi nga xam ne am nañ ko ren ñi nga xam ne dañu rejeté inf euh, euh, dañu infirmer euh, seen seen kii maanaam dañu rejeter seen kii six la ñu yi ñoo valable ñoom la ñu moom la commission réglement et discipline accepté kon ci wàlli suspension yi ñaari lutteur lañ fi suspendre booy xool tamit ci wàllu combat sans verdict yi benn lañ ci am lu jëm ci li nga xam ne nag mooy combat nul yi deux combat nul la ñu am li jëm nag ci quatre appuis 47 yoo xam ne quatre appuis am na ci làmb lu mu gën a wàññeeku nag mu gën a baax ndax tamit euh, quatre appuis euh, euh, vraiment day xajamal bëre kawo yi boo ko xoolee vingt vingt lañ ci enregistré vingt kawo lañ ci enregistré décision médicale yi douze maanaam docteur xool la ba nga xam ne mënatoo bëre mu ne nañu tas làmb ja foofu combat yi nga xam ne disqualification mbër ñett lañ ci ñett lañ ci enregistré disqualification yi nag foog ñu koy leeral mooy avertissement yi nga xam ne bu demee ba doon cinq dañu lay disqualifié moo tax nañu moytu avertissement yi ci biir combat yi ci temps réglementaire bu ñu la ci dis bu ñu la ci avertiré cinq fois attention dañ lay disqualifié kon loolu mooy disqualification euh, forfait yi tamit ñeent lañ ci am kon foofu la ñuy yemandi tuuti euh, ci bilan bi dinañ ko gën a xóotal nag au fur et à mesure seen magazine Roffo di gën a ñëw ndax bi yoon ci côté technique bi nañ ci gën a approfondir bu baax pour xale yi jël seen matukaay comme ni ma ko waxoon les interdits aussi dinaa leen ko indil wax leen interdit yi pour mbër yi bëri ci biir semaine boobu xaw koo moytu xëy na mënoo mënoo moytu interdit yëpp parce que nit aussi matul waaye am na yow mën a moytu yoo xam ne dina permettre sanction pécuniaire bi wàññeeku ci yow sanction administrative bi wàññeeku ci yow mbokk yi defe naa tey loolu lañ leen indiloon ci wàlli xibaar ci wàccaay bi ñum ci làmb ji di leen wax ne di set da làmb ji di tijji ci biir Sénégal kon bëre dóor bi ñu ngi koy waajal bëre bi aussi ñu ngi koy waajal ñoom it ndax booy xool ci bëre simple bi ñaari promoteur ñoo ci amagum licence kon ñoom it ñi ngi wàcc seen journée yi ñu war a ñëw kon mbokk yi foofu la ñuy ñëw nag tënkal leen ko wax leen ne Mouña production comme ni mu ko daan defee mooy ubbi saison bi le 17 novembre ci stadium Iba Mar Diop diggante Mbalane Ndiaye champion d'Afrique ak Paul Maurice champion d'Afrique ñaari champion d'Afrique la ubbeeti yi làmb ji ñu koy waajalee drapeau MEDES bi nga xam ne chaque année Mouña da koy def kon dañ leen di bàyyi sëñ Modou Niang mi nga xam ne nag mooy ubbi saison bi ak wàccaay yi mu ci jël ak tamit matukaay yi nga xam ne jël na ko ci ouverture saison bi Modou Niang ci euh, première journée bi nga xam ne war nañ ko def ci stadium Iba Mar Diop. jërëjëf Alaaji Ngagne Diagne bu ma nuyoo suma mbokk Sénégal yëpp sant ñëpp gërëm ñëpp ziyaare ñëpp nuyu président Alioune Sarr ak waa làmb ji yëpp ñoo ngi fas yéene démarrer saison bi le dimanche. 17 novembre ca stadium Iba Mar Diop ñu war a teg trophée waajal drapeau MEDES MEDES bi nga xam ne suma mag suma xarit président Mbagnick Diop moo ko jiite. ci biir programme boobu nag programme bu riche lañu ko def boo xam ne bu am solo euh, mu tàmbalee ci Malal njaay mi nga xam ne moo nekk écrit yëmbal mbooloo mu war a bëre ak Paul Maurice école de lutte ñoom ñaar di ay champion d'Afrique comme ni ko Alain yi ngañ waxe général Tam bu école di Abim Ndiaye ak Ali 2 bu Waalo Clinton bu Waalo war a ak Jara 2 bu Ramdan Batista bu Abim Ndiaye war bëri ak Aatu bu Jumbóori booy ngooy bu sàkku xamxam xam war ak Boy Yëmbal bu école di Dubale Alliance Balde bu Abim Ndiaye war a bëri ak Caatu Saalum bu Ramdan Petit Baboy bu Alpulaar mooy bari ak Vandam bu Abim Ndiaye li nga xam ne mooy animation indi nañu Baabu Ngom ak Mayendeb loolu soo gisee ñu indi ko dañu bëgg jour boobu ñu gën cee dundal culture séeréer moo tax ñu woo ñëpp waa arène Adrien Senghor ñëpp woo nañ leen ci bis boobu parce que euh, dugg si Paul Maurice ak dugg si ab Malal Ndiaye ku ko tardé daanaka làmb ja sax moom lu ci bari raw na la loolu nag moom lañ fas yéene def billet yi incha allah dañ koy def loge bi cinq 5000 francs la li nga xam ne mooy turbine cinq 1500 la ñaari billet yooyu moo am mooy 5000. ak mille cinq cent donc loolu mooy li nga xam ne daal moom lañ fas yéene ubbee saison bi ñu bëgg ko ubbi ubbute bu am solo ubbute bu mag ànd ci ak euh, télévision Futur Média jërëjëf jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ngeen dégloo sëñ Modou Niang ci première journée bi matukaay yi nga xam ne jël na ko ak tamit ni mu bëggee aborder première journée bi ni mu ko daan defee xam nga waajal drapeau MEDES la muy drapeau bu mag boo xam ne toujours wàccaay bi combat lay doon mu boole nag ñaari champion d' Afrique Malal Ndiaye di champion d' Afrique euh, yëmbal mbooloo ak Paul Maurice bi nga xam ne mu ngi ci école de lutte bu mag ba mu mànga day jiite euh, moom it di champion d' Afrique ñu boole leen ci première journée bi parce que dañ dañu bëgg a gis bëri ak dóor bëri ak dóor te ñoom ñaari ñaar yëpp la ñuy def kon je pense que première journée bi yàlla ñu ci kat euh, yàlla ñu ci yàlla yóbbu Euh, ci ci kattanam te te daña bañ mu bañ am benn gàllankoor te ñuy dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim euh, génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi foofu laa leen di tàggoo di leen siyaare maa aussi c'est ci réalisation bi euh, Demba ci caméra bi ci montage bi Alassane Alou nga xam ne moom it ñoom ñëpp na monté woon nanu di ñaanalaat ñëpp di yeesalaat ñaan ci ñëpp comme niñ ko defee woon Euh, di nuyu nag sunu mbokk yëpp nga xam ne euh, daje woon nañu ca Baytilaay xam naa ne ku ci ne yaa ngi toog di ma seetaan namante nañu ndax nekkin bi rafetoon na ñun ñëpp maa ngi leen di ñaanal di leen siyaar bu baax suma rakk Masata Ndiaye nga xam ne nekkoon ak euh, Serigne ñoom Ngañ Ka ak góor gi Assane Assane nga xam ne ñoom ñëpp Camara ñoom ñëpp ñoo bokkoon nekk de Médine ba Màkk ak di ñaanal nag suma rakk Abdoul Aziz Ndiaye wax naa ko nee naa leen. képp koo xam ne kii yaa ngi may xool daal nag ma ko ñaanalal yàlla ndax ci sabab bi ci loxoom la jaar waaye di gërëm groupe Futurs Médias mi nga xam ne euh, ci ci ci ci liggéey bi la ma loolu fekk kon ñoom it ñoom ñëpp maa ngay wax ñu ñaanal leen yàlla ci barakatu rasulilah alayhi salaamulaay mbokk yi foofu laa leen di taggoo ren nag roofo bi nee naa leen mbaax lañ koy demee décortiquer ko nee naa leen làmb ci coow lay ci coow lay ubbee. ci coow lay tëjee te nee naa leen coow li ba léegi mi fi des daañu ko gën a leeral mbokk yi jërë jëf Euh, Thierno maa ngi lay delloo euh, nuyoo bi di la ziar di la nuyuwaat dolli la ci nuyoo bi yeneen ñaar muy ñett. yaay ménager Malick Niang mu yoof tey lan nga yet ak lu ngeen lu ngeen andi. waaw tey soo xoolee turbine bi rek tey waxuma yoof waaye nga xam ne Ndakaaroo fi daje waaw lépp lu ci waroon ci làmba ji def nañu ko waaw li ci des nag jëmbat fol ak fayda ju sëkk yàlla may ñu ñu dem feete de ko. lamb ji doon na lamb ji am lamb ju doy waar la man damay dégg à tout moment dañuy wax naan ku juum daanu mbir même bu dul sax boo juumul doo ñàkk li nga bëgg mais man li may pronostiqué mooy que ni ñaari différence yi ñaari mbër yi nga xamante ni bokkuñu profil kii day xeex ci kuy xeex kuy xaar moo koy arrangé Sa Thiès day def premier tampon du taxaw bu arbitre génnee seen diggante bu tibbee suuf kabar day ñëw sa kaw. donc li ma see xaw a jaaxara mooy Malick Niang est-ce que a contrer Sa Thiès parce que Sa Thiès mi moo gis tey si kantanu yàlla lu koy teree am ndam noo gisuma ko man. waaw lu nu ñëwee. jàmm rek ak salaam. ñoo nar. waaw li ma nar mooy bëggal amateur yi. foog toll. pare naa. kañ nga ñëw. ñaata fan nga fa def. vingt jours. bi nga ñëw léegi noo def. liggéey continuer liggéey. nga ni lu loo indi. bëggal amateur yi bëggal suma supporter ñaan yàlla sama rax yàlla may ko ndam. kañ la sa bis. sama bis la deux lees. maa ngi lay lees lu yëg tey. sant yàlla rek. yaa andi xale de. sa doom di bëre ngay ménage am nan la mel. sant yàlla di muñ rek di yaakaar suma mbokk. foo de sa maam amu ko woon ci daan gunge. Fallaye sa nijaay dala daan gunge waaye tey nga doon ménager jur loo waajale xale ñoo ma yabal ñoo ñi nga lim ñoo ma yabal ak suma mbokk yi mbokk Kaasase yëpp ak supporter fii Buun ñoom ñëpp yombal géej ñoom ñëpp a ma yabal loo yëg tey contentement ak satisfaction rek ak santaan yàlla nag ak sant suma ay waajur bu baax a baax baax a ni ma koy waxee ñun Papa Thierno ay jaam yu xeebu lañ ay jaam yu ndaw yu mënagul dara amagul dara lenn rek la ñuy wut tar bi suñu waajur bu am ngërëmam ñu ngi koy ñaan yàlla nañ ko yàlla defal. mat seen looy waaw waaw tey moom vraiment làmb ji neex na rëy na xam nga vraiment li ci séntu woon yëpp yàlla suñu borom def na alhamdulilah. foo toll. waaw maa ngi ci entraînement nag bu baax a baax a baax baax sax. kañ nga war a bëre. ah man la 30 juin. lan ngay wax sa adversaire ak say supporters. ah di leen wax rek nee na ñaan bu baax préparer bis bi teel a ñëw ci stade bi yaa suñ borom may ñu dem ñu ñibbi. ah foo toll. waa ñoo ngi suñu entraînement di xaar promoteur yi ñëw ñu tëj saison bi si kàttanu yàlla. foo jëm. waa fu jëm ñëpp xam nañ ko. xamuma ko deman waaw ñëpp xam nañ ko. maa ñi nga àndala ko. maa ñu war a bëree mag ñi bëri ndaw ñi. mag ñi ndaw ñi. waaw war a sama mag war a bëree samay morom. sa baay bi mu toll foofu daana ko def de mais sa baay danaan nañ ma dox diw ma sàggi sagam. mais bañu ma zos bañu ma ba zos papa sax ñun ñëpp bañu ma leen waaw dama war a sama mag bëree samay raq maa ngi si combat yi bu baax. kuy daan. ah kii daan yàlla xam na ko yàlla pare na. bàyyi ko bàyyi ko ñëw mbër mbër mbër buso buso joo joo bàyyi ko ñëw bàyyi ko bàyyi ko ñëw bàyyi ko ñëw bàyyi ko ñëw. ay jàll bu dul. waaye sigi na waay sigi na. waaw jox nañu rek. ay non non non daal nañu ma bëggoon sotti daal nañu ma bëggoon sotti sotti nañu ma ko mais garaaw làmb du loolu quoi du ay galaaj quoi fekkee foofu la ko yaakaar rek dinañ tëdd nelaw duñ ma sotti nii du garaaw du dara. xëy na loolu la loolu lañ mënoon quoi mais am problème yooyu. mais tu es confiant. non am naa confiance ni moo sotti du dara. non non yéen maa taxul la li non nii. waaw ah, mais nag lu baax a baax lu ma kaani say baaraam fi ko sa morom mais waatoo baa ngi noonu Malick Thiandoum diggante Thier ak ki nga xam ne mooy Ronaldinho Thier moo woon ginnaaw ndax Balla Gaye moo daw dem ci supporteru Sa Thiès waaye ñu des ci combat bi diggante Thier attention daw na jéggi nanu bot ko ñoom ñaar sigi nanu ñoom ñaar bëri nanu ci suuf sigi nanu ñaari xale yi na ko ana mboot ma mboot ma ana tànk ba dindi na ko Gol bot na ko. hop oh, hop hop daan na ko jëli bu rëy. Ronaldinho daan na ko jëli bu rëy. hop oh, hop hop hop. daan na ko football la brésilien la. ki nga xam ne mooy yàq nga la jiital ki tànku càmmoñam la jiital Malick Thiandoum. ñoom Mamaya. jàppante nañu teel nañu. jàppante nañu teel nañoo jàppante. yaa da ngay dugal uppercut sa morom sigi nga mën a sigi. waaye bu dee njool boo sëggee lu yàgg sa digg leer na da ko mot. da ko mot mu tëddee flan. donc Mama Ya daan na ale jël bu set gis nga loxo yi na mu taqe suuf. Treize numéro 2. Boy Noto. bu caaroy Boy Noto Rock Énergie. gis ngeen noonu. ngi ñu ngi leewaatoo. ki leen woon Thérèse Ly numéro 2 daje nañu attention attention ah arbitre bi sifflé na attention door na ko ci suuf. ah, ah door waru fa am tey ba ñu jógee ci saako yi dara amagul ñi ngi noonu jigéentoon nañu ñi ngi laalante ay loxo door na léegi. booy nooto moo sànni léegi door na door mais ah Thérèse door na eh door na ko. door na ko daw na song coup bi dal na. ah moo tax mi ngi accéléré. dal na daw na jël ko. mi ngi accéléré jël na ko. door na ko attention Boy Noto jëlee na ko. attention Tawo ah tibb na ko daan na ko. dafa sulli tànk bi. tëj ko mu daanu jël bu rëy. kon nag. xeex ba dafa métti ah. ah xeex ba métti coup yi mu jël a métti. waaw coup yi dafa métti. ah Ilaah Ilaah. ah jël bu rëy la ko daan. oh pop pop pop. daf ko door mu tiddi ba mu accéléré. dem ko jëm kaani. dem sulli ko. voilà supporter yi jóg nañu. Thérèse ah, Diouf numéro 2 Thiaroye. waaw waay daan na Boy Noto la ko déglu. diggante Bismi Ndoye ak Auguste arbitre bi sifflé na. Auguste mi ngi jiital tànku càmmoñ. Bismi Ndoye jiital tànku ndey Bismi sànni na benn gauche. Ah, Auguste door na Bismi takk na ko. takk na ko takk na ko. Auguste Rassuna. Auguste Rassuna Auguste door na léegi. Auguste doorat na. Auguste gi door gi rokkos. Auguste gi rokkos. mais door yu métti la door ba. waaw dugal na uppercut yu tàng jër. Ah jër waa ji jàpp na da ay direct. Auguste attention. Bismi Ndoye pàtt ko Bismi Ndoye. Bismi Ndoye daan na Auguste la arbitre bi wax. Bismi Ndoye daan na lan moo xew. attention Malick lan moo ah arbitre bi kan appui la ñu wax. waaw ah, way dafa am lu xew attention dañoo yàkkamti benn tànk Auguste mi ngi ci kaw. waaw ah, waaw taxaw noonu dañoo teel a sifflé. te loolu désavantage te ne désavantage na Bismi que moo jekk woon. Bismi Ndoye Bismi Ndoye Auguste daw ñoom ñaar. songo nañu Bismi dem bañ na. Auguste dafa diis Bismi Ndoye fàtt na ko Auguste bañ na waaw bañ na na ko Auguste na ko ah Bismi daan na Bismi Ndoye daan na ah mooy yéen mooy yéen mooy yéen waaw waaw Bismi Ndoye daan na ko Bismi Ndoye Gambien. da koy taxar ñi jàpp na ko bu baax a baax a baax. waaw Gambien jàpp na. xeexul ak moom day yor Baye Peul ko yëkkati ko xar ko bañ na. bëre nañu ñoom ñaar la ilaha Gambien bëri na bëri bu rëy tey Malick. Baye Paul bëri ah, ñoom ñaar jàppoon nañu Gambien jàpp na. attaque contre attaque. Ah, waaw loolu lay def. laa ilaaha illallaah. po po po Baye Paul moo ko moo ko moo ko. eh taxabal ah, ko eh, daan waaw waaw. waaw oh. daan Gambien daan bu mais doole doole ak poids Modou <laughs> euh, yi ginnaaw bi ñu demee seetaan combat préliminaire yi gis nga euh, ki nga xam ne mooy Baye Peul euh, daan Gambien jël bu set wecc xale bi nga xam ne mooy Bismindoo yi moom it ku ne xam na ne combat bi bi mu koy bi mu koy bëre combat ngi ci mbaggam mais daf ko bëre ndax xam nga bi mu daanee Auguste ba pare Euh, dafa war a dem le 8 juin ca Bercy euh, daje fa ak ki nga xam ne mooy Elton muy laa bel ñoom ñaar parce que ku ci ne da nga daanoon sa morom. Mm. kon je pense que bis mi ah mi ngi ci yoon bi gis nga Thérèse Ndir état de forme bi mu indi man ni ma gisee disposition bi mu indi laa xam ne xale bii du ko dékku booy nooto te booy noto bokk na ci xale yi nga xam ne. dañu sérieux dañu sérieux euh, pour daan ko danga koy teg lu mu attanul moo tax Thérèse da ko teg lu mu attanul. imposé ko bëri bi daan ko kon Treize Ndir aussi revenir na euh, Mamaya ak yi gis nga combat bi euh, da ko da ko expédié moom Mamaya daan ko jëlee bu set wet wala di ñëw aussi dellu si waat mook Thier combat boo xam ne bii gis nga euh, na mu ko bëree mboot ma da ko mane defoon na ko ci combat bu njëkk. waaw mais gis nga. arbitre yi aussi bu ñu xamee sa manin boo ci delluwaatee rek du am jumte. kon je pense que ñëw euh, aussi gis nga ko digganteem ak Thier ci combat yooyu amoon na fa ci euh, li nga xam ne ak Aziz production euh, mbokk yi dañuy dem nag ci grand combat bi grand combat bi dañuy njëkk a seetaan rentrant mbër yi ba pare seetaanaale grand combat bi dellu soit ci plateau bi. fii la Papa Kane dajëg Double Less fii la Maam Gorgui Ndiaye dajëg Double Less fii la leen Double Less daane fii coow lu rëy la revanche bi am Mbaye Gueye ak Double Less ñaari mbër yaa ngay xasante ca géew ba luñ ma daan la mu jeex ku nekk ko koy lu rëy stade bi ni mu feesee gëj lay jeex na ku àndoon ak nga biir géew bi pour télévision Futur Média du groupe Futur Média seetu askan wi di seetu addina bi yëpp ndax foo dem ci addina bi askanu Sénégal a nga fa dut sekk ca waya ndaanaan yëpp ñëw nañu arbitre bi nee na ndax pare nga pare naa la ko Sa Thiès tontu Malick Niang pare nga Malick Niang pare nga mu ni waaw Sa pare nga mu ni waaw arbitre sifflé na génn seen diggante Sa Thiès na ginnaaw ne gars yi jóg leen Sa Thiès muy bëre nii Sa Thiès lu mu bëre baaxul lu mu bëre baaxul kaay kaay kaay kaay Malick.